kumba joobe xa ñaawara fi jolle duudu ñaaj ka tere e kumba joobe xa ñaabara fi jolle duudu ñaaj ka tere duudu ñaaj ka Thank you. gis nga mbokki Leewtoo yéen a gis ni waxuma la dara waaye compétition bi commencé na mbër maa ngay sotteeku ay bitel xool ko ubbi na ko sotteeku sotti na ko ca bopp ba rangoo kurus ga hey hey dem na ci biir xoolal ma lii lii de xaw ma nuñ koy tuddee biteel yi moom xes nañ leen a sottee ko ba ñu jeex waaw mais maa ngi fi rek. ban région nga man Fatick. waa Fatick. waaw waaw. waaw. waaw mais bagage yi nag nu mu demee mën nga ma leen expliquer. non non mii moom mënu ma koo expliquer. Ah. waaw mën nga toog rek. waaw damaa toog rek nga ne jox ma bii rek nga joxe. waaw waaw. ah noo tudd. man Serigne Saliou. Ah. Serigne Saliou Ngom. waaw mais yaakaar ngeen di ngeen jël coupe. waaw bu baax sax. Mhm. am naa ci bu baax de gis nga yàgg maar yaa ci gis xoolal ma kii kii dafa jël suuf si jal ko samp ci ay béjjénam biteel yi feete ci kanam mu jël beneen jal def ko benn béjjén bu ndaw lii na xaw ma lu mu doon xanaa ma jege leen ñu expliqué ma waaye lii doy na waar lii doy na waar grand na ngeen def. waaw ñu ñaari jàll suuf si mën nga ma ko expliqué waaw li tax ñu def ko nii affaire bi dafa xaw a am kekk te béjjén yi mu ñu si dugg si biir. te béjjén yi daa am li si nekk quoi loolu moo tax ñu tibb suuf def ko fii nii waaw. mais mais bii benn ngeen ci sam bale bu mag la ngeen sam bii yu bëri te dafa mel ni ñaari daan ub la ñuy wut par équipe ak individuel. mbokk yi to équipe bu Dakar a ngi nii Bébé Diène moo représenté 100 kilos Omez Diagne mooy seen directeur technique Omez ñu xam ko bu di suñu nijaay di suñu papa amee Omez. waaw équipe Dakar nu mu demee nii da ngeen ñuy yoxosu wala qu'est-ce non xam nga sélection dafa nekk loo xam te ne nii lu lu délicat la et ko daaw dañ ko jël pratiquement formule bi ñu ko jëlee PAM changé wul mais boo seetee équipe bi pratiquement ñaar nga ci xàmmee ñoo xam ne ñoo nañ daaw mais ñoom yi ci des yëpp compétir nañu au niveau de la position de l' état. surprise la wala lan la. oui non enfin pas enfin c'est une surprise pour certains parce que ils ont essayé partout di xaar Franc ou bien ñu xaar euh, Boy Koña donc euh, gisuñu leen donc euh, formule bi dafa war tey liggéey bi ñu def woon na détection bi am na solo donc tey xale yi bu ñu amuloon principe d'efficacité bi nga xam ne war na ci làmb war na ci bëri am nañ tey de lutte kon du ñu solo suñu couleur te damay ñaan yàlla yàlla jàppale ñu li ñu amoon daaw ñu amaat ko ren parce que la confiance y est xale yi nangu nañu liggéey. def naa un regroupement d'une semaine ak ñoom tey aujourd'hui def naa ay évaluation def naa graphique de travail donc même opposé dañ ñëw amul problème ñu cinq dañ ñëw jàll euh, au niveau des consciences aussi dañ ñëw jàll donc ça veut dire que ne psychologiquement ils sont prêts physiquement ils sont prêts maintenant ce mooy le domaine tactique qu'on va lutter incha allah. kii war a Diourbel kii war a Kaolack Boy Faye Diourbel Caaka Faye Kaolack Boy Faye ceinture bleue. moo ñu nekk côté ndeyjoor Caaka Faye ceinture rouge nekk suñu côté càmmoñ ñu ngi lewoto attention Boy Faye dem na jëli tànk ba Caaka da daa doon fecc léegi moom Caaka Faye daa jooga suba mu neex ko Faye biram pena waagan xool ko xoolal lewoto ba laa ilaha illallah eh ndekete mbër dana bëri di bàyyi waaye xel Caaka Faye Kaolack Boy fay Diourbel attention Boy Faye ñoom ñaar kenn ku ne pied gauche nga jiital biram ñaar ñi xamante nañ dafa mel ne tey représentation bi mooy différé rek ndax dina ko ci bàyyi ah ah ah Boy Faye daan na caaka fay dafa la ilaha illallah ah arbitre bi lu mu wax ay juge ah. ah Boy fay daan na Thiaka waaw waaw daan na ko waaw waaw ils sont très sportifs. Birame dafa mel Boy Faye daa décidé ah. Boy Faye des fois day gën outsider. dëggantaan mais tey mënul fooge lay ñëwee. tey dafa mel ne dafa décider boo gisee nu muy bàkkoo depuis sànq.